tey moom ma dugg benn kër jàmbur di sàcc du ma toog suñu kër yi fa dog paa bi di ma tànc nan laa war a def baay nan nan nan laa war a def baay ba dog tey te kenn du ma gis xool paa yeeg maire yeeg lu dil lu dil est-ce que du ma jéem a dugg gàlle dugg si waañ bi jéem ko kut ci foofu kenn du fa ne heure bi ñëppay tëdd nelaw idée tey cool na bàyyi tey cool na wañ bi dara dara nekku fii du ceeb du mburu du diwlin du xorom almeri sax dañoo jeex yaa ay dagg yaa ay dagg bàyyi xam na xam na dem bàyyi eh maa ngi see eh, kii mu see man la ay eh, taxal taxal yow deux ba six quatre fii la yow ngay randal eh, six cinq la ah, jël jël sànq amul la génnal ma coob la te danaa nag bàyyi c'est la fin du monde quoi sonn naa xiif naa bàyyi teewul ma coob xalaa xama jaar nii di say naan mburu pressé ay ñoom café au yu neex yooyu noonu oo ñuy dox may ma tuuti rek ak ñoom yaa yaa Preseya Preseya mi ngi nii mi ngi nii mi ngi nii boo kii daa daa may rab booy. ban rab booy yéen i yabaate la may rab yaa ngi ni jox ko. mbooloo mbooloo kii dafa bëri xam naa kii da koy daal yaa nga jox presse après muy laajam lii rab la ci moom dafa la xam ma delloo yow Paar la bismillahi rahmaani rahim man jàmm ji man lu tax manuma am jàmm sama kër gi ah coow guddi coow bëccëg imaam jugal sa kër gaa ngay tas rek laay dégg chaque jour waxi lan ngeen di wax ah may dégg waxi presse ak lu ne ngeen ciy dégg noonu Seydou lu xew sama kër gi kii rab bee ko dikk laa rabu bi ko doon dikk. mam Seex mii mooy daanu daanu lu fii kii jox ko Présia. xaw ma man mel na mel ma dencoon si si fii Présia boobu la. man dama ma ma ñëw. ah ma xooli Présia bi ma xam. booy yow booy yow da nga soof ku waa yow. sama Présia bi lii lii lii. maam Seex sama précia bi bii la jël nii mais bu ma ñëw bu sa doom xanaa doom ba ci lan lii may bànneexu ci sama put bii di di tokki tokki ana maam Seex maam Seex génnal fii. maam Seex moom deful dara de moom deful dara. maam Seex mu ngi ci biir. maam Seex yow an say bagaas. ñu ngi ci biir maam Seex maa ngi sa yaay loolu lan bokk. Ndeye ak Baye bokkutuma ak sa yaay dara génnal. maam Seex jëlal say bagage bi di dem waaw kii du fi kii kii kii pare naa ci moom xale bi chaque jour coow coow coow. nga defe ni lii jaadu ana maam Seex eh jëlal say bagaas jëlal. jëlal jëlal da nga soof yow. kay génn si kër kay. ndax ndax lekk ndax lekk. seet na génn sama kër. waaw jaral na ma sama président bi ma denc am ci yaakaar maa ngi jël chaque jour mu may indil coow. génne sama bi kër moom dégg na may ànd ak moom. waa ngeen ànd jëm ca. xanaa xanaa jiw moom dem leen ci bokkuma ak ay dara. Pawla laaj paas Pawla laaj paas ah yow am nga jom ma wax ngay laaj paas. fii ci dërëm rek ma jël kaaraam. ñu dem Serigne du ko laal doo laal Serigne. papa ku la bàyyi ku la bàyyi ndax ay lii nii ay waay. amatuma lu may wax man li may wax wax naa ko ba pare sama kàddu nag du du ba pare muy muy xale yu ndaw di ko daane ci biti fu mu xam ne jëm waaw dama ci biti yaa xam. di dem naa jox paas ñu dem waaye ah. waaw ba ndox ndaw waaw ba ndox ndaw.